mu mel ni ki ñu doon xaar egsi na waaye ñu wax rek ni ñu bëgg programme bi tëddee ndax bëgguñu fi yàq bëgguñu fi yàqule li tax mooy ay kilifa boo leen dajale am na nooy guddalee jotaay bi di nga am loraange bu mu la jural te bëgguñu lor kenn ñu ñaan yàlla fu ñu yàlla dimbalee ba zéro heure jot ñu mën a yëkkati jotaay bi ñaanalante ba déwén. ñii dañ doon ubbi rek mu mel ni bi ñu santee mbokk yi fi teew yëpp sant mbokk yi doon dagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanal leen yàlla yàlla yàlla yokk seen i xam-xam te wéral seen baat ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nuyoo bi ñu ciy jiital imaamu ratib imaam Thierno Oumar Seydi Diallo di ci teg naayibam ñu koy wax imaam Mounirou Dieng di ci teg imam délégué de quartier El Hadj Demba Fall ñooñu suñu leen nuyoo mën nañ ñu yóbbaaleel ñi ci des ñëpp géew ndax su wàccee ci dëkk su nuyoo imam nuyoo délégué de quartier yaakaar naa bàyyiwoo kenn kon ñooñu mën nañ ñu yóbbul ñëpp géew waaye nuyu. suñu sëriñ suñu oustaz oustaz Aliou Wade nga xam ni moom mooy oustaazu daayira bi ba daayira bi soso ak tey loxoom mosu si jóg ak xelam ñu koy président comité de gestion El Hajis, Monsieur ci noonu la ñuy nuyu suñu suñu conseil suñu xarit El Hadj Yoro Fall su ko defee Serigne Mor ñu ngi koy nuyu ñooñu nag wax yàlla mën nañu yóbbaale ñëpp géew xanaa kàddu yi mooy imam Omar Diallo moom lañuy may benn temps bu ndaw rek donte cinq minutes mu ibbil oustaz Serigne Mansour Fall incha allah. ñëwaat rek wax ci historique bu daayira bi fi daayira bi jóge ak fi mu jaar ba fi mu egg si tey su ko defee ñu nuyu ajaratu Ayda Congat nga xam ni moom mooy présidente daayira bi ba ñu ko sose ak léegi wax dëgg yàlla diku ko ñaanal yàlla mu yàgg fi lool te yàlla yokk wéram ci barke yonte bi sallallahu alayhi wa sallam nuyu Mouhamed Tamsir Dramé responsable politique coordinateur mouvement Razan wax dëgg yàlla moom dafa bokk ci ñun waaye nit ko xamul noo koy def lim la dafa tax ba tax na bés bi moom lañu ni moom lañ ko parrainé li tax ñu parrainé ko dafa féete daayira bi foo xam ni xëy na ñu bari mënuñu ko fa féete rawatina ñun ñi nga xam ni yàlla moo ñu teg ci bopp bi suñu amuloon ñu mel ni ñoom daayira bi dina xaw a sooxe waaye wax dëgg yàlla fu daayira bi soxla bu ñu ko fëggee mu jóg tànkam ak loxoom ak xelam ak xalaatam yépp ba ñu li ñu bëgg ñu am ko amuñu nag xaalis buñ koy jox amuñu luñ ko mën a fayee lu dul ñaanal ko yàlla ak jotaay bu mel nii suñu ko amee ñu jël ko dara jaale ko ko parce que yaakaar naa mënuñu am boo ñu amoon lu ëpp loolu dañ ko koy jox waaye nag loolu lañu mën ñaanal ko yàlla dara jaale ko bis bi waaye lu am bàyyi lu ne war na am nday suñu ko bàyyeelee bis bi ki ñu ko ndayelee mooy ajaratu docteur Fane Ndiaye muy suñu yaay ji dëkk fii li tax ñu jox ko ko ndayele ko ko mooy dafa dëkk ci dëkk bi am njaboot njaboot gi nekk ci biir daayira bi ki ci jiitu woon mooy Mansour yàlla na ko yàlla yërëm fa mu tëdd te yokk ay leeram ak i maqaamam ci barke yonte bi sallallahu alayhi wa waaye bi Mansour génnee àdduna rakkam Khadija ni Mansour du bokk ci daayira bi ba génn ak daayira génn àdduna ñuy jël daayira bi bañ a ayati daayira seen kër moom day ñëw yenu loolu yàlla def mu nekk ci biir daayira bi ba xëy yàlla may ko boroom kër waaye ak loolu yëpp xelam ak xalaatam mën-mënam jugul ci daayira bi benn yoon su ko defee ñu ngi koy nuyu mook délégation bi mu àndal yëpp ak wax dëgg yàlla nuyu artistes yi fi teew yëpp aima yi fi teew yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar dawaayir yi fi teew yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar incha allah après Omar Tine dina ñëw ci remerciement yi dañuy bañ a guddal su ñëwee incha allah képp koo xam ne war nañ la tudd ziar na ñaanal la yàlla ci sa taxawaay ak oo dëgg yàlla mu ñëw ci lool mu am ñaar ci suñu ay waajur yuñ ci rendre hommage daaw bi ñu ko defee dañu jël góor gi imam Ablaye Mbaye ñu rendre ko ci hommage fàttali ko ci ñu xam ci moom loo xam ni sax xamuñu ko woon ci làmmiñu chef de quartier tey jii nag ñu jël ko dara jële ko ñaar suñu ñaari waajur yoo xam ne ñi ngi fi woon te jiitu nañu ki ci njëkk mooy imam Mor euh, délégué de quartier Mor Fall di waajuru Demba Fall mii moom lañ ko lañ ci rendre hommage ak imam Serigne Touré ndax kat bu ñu ko joxee imam Abdoulaye Mbaye daaw. yàlla may ñu ñu dund ba fekkee ren awa dëgg yàlla jaadu na nag ñu jagleel ko imam Serigne Touré ndax dañu nekk suñu bàyyi yoo xam ni li ñu mën tey ginnaaw yàlla ñoom la suñ ñu ci tettewuloon amaana mën nañu nekk ci leneen kon wax dëgg yàlla léeg-léeg ñu di leen di fàttaliku di leen ñaanal yàlla loolu daf ciy baax lool suñ nuyu euh, suñu mag yi nga xam ni euh, ñoo teew suñu wet nii suñ ci tuddee euh, góor a sàll tudd ci Abdourahmane Ndiaye seer Diané suñu magu daara wax dëgg ak délégation bi ñu àndal yëpp nuyu leen ziar leen. nuyu di leen ziar di nuyu képp koo xam ne yaa ngi ronu baas bi ak ñi nekk ci ginnaaw baas bi ak dëkk bi yëpp ñu ngi leen di nuyu di jiital ci nuyu bi délégué de quartier ak ay mbay yi nga xam ne ñu ngi fii ak mboolem ñu fi teew rek mbay waxoon na léegi du ma si. delluwaat kon dafay gudd kon ñu ngi nuyu bu baax di dalal suñu xarit suñu sëriñ euh, Mahamadul Mansour Fall mi nga xam ne ñu bari xam nañu ko ci télévision bi mooy Malikiya moom moo fooy def tafsiru alquran ñi koy invité mu fee amal ay waxtaan woo xam ne yu am solo yoo xam ne yu tegu ci xam-xam yoo xam ne du propagande du waaye daf cee wane xam-xam dëggantaan ba keroog sax daaw bi ñu ko joxee waxtaan ci Tiwaawan ci burdu mu def ko waxtaan ba pare bi mu jeexale ndeysaan Serigne Abdou Euh, Serigne Babacar bu Abdoul Aziz dañoo gis ndeysaan xol bi tooy muy jooy waaye laa xarwa an yaxzul fata xazu waalidihi ndax Mansour Fall kan moo ko jur Alaji Fall Alaji Fall kan moo ko jur Serigne Lamine Fall ci mbar nga xam ne ñoom seen lépp Hajj Malik rek ah, radiyallahu anhu moo leen jàngal moo leen yar moo leen tarbiyu seen lépp foofu la kon kooku su melee noonu du du du yéemi kon alhamdulillah ñu ngi sant yàlla bu baax di ko santal yàlla mu nekk koo xam ne nag suñu xarit la nit ku baax koo xam ne fa tabarakallahu bi ñu xamante ak léegi su àggee kër ay da nuyoo rek su génne ci man la jëm si yàllaa ñu boole tabaarakallah man maa ngi ci sant yàlla bu baax nag parce que am xarit bu mel ni yombul am xarit bu mel ni yombul xarit boo xam ne dafa am xam-xam ba pare boole ci modeste dafa modeste tabaarakallah kon yàlla na yàlla guddal sa fan yàlla yokk xam-xam bi leeral dënn bi fa tabaarakallah ba li nga bëgg ci diine bi yàlla may la ko te taarifkat la euh, macha allah dafay def bind ci taarix bind ci lépp fa tabaraka la borom xam-xam la mu ngi génnee Koweït foofu la jàngi mu jàngee ci keppaaru baayam ba jeexal foofu li ñuy jàng ci Sénégal mu soobu génn nag dem xaarij dem euh, Koweït foofu la jàng ba am ay diplôme kon jëmm ji fa tabaraka allahu Euh, xëy na at yi demeewul noonu waaye fa tabarakallah xam-xam bi moom macha allah ci borom ay diggante ay borom xam-xam lay lañ koy jox micro mais muy muy waxtaan fa tabarakallah ñu ko sant sant sant bu baax di ko gërëm euh, ren nag dañoo bëggoon yëf yi soppeeku mu ba bañ nekk folklore ay jullit suñu dajee nañu def foo waxtaan woo xam ne suñ fa jógee kenn ku nekk am leçon boo yóbbaale ndax loolu moo nekkoon philosophie sax burd burd Hajj Malik radiyallahu anhu dix jours yi dafa meloon noonu congrès congrès li mu bëgg wax yépp ci burd bi la koy wax ci fukki fan yi orientation yi ñi ñuy ñi ñi ñuy gàgganti ci diine ji ci tariixa bi yépp ci fukki fan yu mujj yi Serigne Mansour Fall pour mu waxal ñu loo xam ne dina indi njëriñ surtout euh, jamono ji ñu toll ak ndaw yi ak difficulté yi fa tabarakallahu xam naa ne incha allahu dina ci ñëw damay bañ a mu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal yàlla ñëpp di ñaan yàlla liñ fi nar a mu nekk njëriñ ci umma islam bi salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf euh, imam الله تعالى على الصحابة دعوة لكبارنا الأجلاء إخوة الأكارم السادة والسيدات سلام من الله عليكم ورحمته منه وبركاته mbokk yi gannaaw bi نيب sant yàlla nit su xalaatee dara di ci dox ba mu koy sotti war naa sant yàlla maam Cheikhul radiyallahu anhu jël ko nga yóbbaale ko mu nekk bind sa giiru dund دفن لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى هديان من قيل وقال بغن غيسه ما اندي باي بوبو بلا ما يكسي كي بي لي امام كرن سعيد عمر جالو مولانا لي اوب تي ba ñu mën dem ñu ne ko ñun réew mu ñuy wax Sénégal dañuy jox carte d'invitation yu bari nu ñuy def mu ne wa qallil min liqaa'i nnaas illa li axdi ilmin aw islaahi xaal lii ma lay wax soo ko jëlee nga ko bind àll wala du gàtt du neex a jàpp Maodo nee de bu ñu la joxee carte invité la ci gàmmu takkusaan conférence et cetera mu ne nga dem jële fa xam-xam wala nga dem sa xol tooye fa nga yokk Maodo nee na demal waaye nee ñaar yooyu bu fa amul nee na jarul li yàlla gën a fonk nga xam ne bu yëngut ci yow du la sant dara muy xel ñuy dajale di xel di xalaat di xel ba ne dañu bëgg a def pour pour populaire ñuy xalaat ba ne bés sàngam lañ ko bëgg a def suñ yemoon ca li lii du taxaw ñu ne leen génne dara ci poche yi lii ku ko gis xam ne alal dem na te yàlla bi muy jaay aljanna dafa ne ñaar laa koy jaaye sa bakkan ak sa alal inna allaha ashtara min almuminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna alal sax lool ci xol ndax wa ma summiya al maalu maalan illa li anna al quluba tamilu ilay moo tax muy fitna innama amwalukum wa awlaadukum fitna yàlla nee na am na ñoo xam ne seen alal fitna la ci ñoom kon def nañ ci alal muy ñaata ñaar tant yi lu yëkkati boppam muy ñaata waaye bi yooyu dajee yëpp bu heure bi jotoon ku ne toog sa kër mu ndax dana sot kon def nañ ci suñu temps soo jëlee xel alal doole temps Maodo nee na boo ko defee ci mbir te jëriñuwuloo ca boo demul faarek say bokk war nañ la fayu capte ko di góor di jigéen di mag di ndaw ci tànt bi capte ko yóbbaale ñeent yi boo ko jëloon rek dem doy na la àlluwatul ma yëkkati nuyoo ak li mu làmb lépp roof yàqul jën surtout ngay waxee yaraax fi jën yi bare nga xam ne fi la mool yi ne ñu jege tefes loolu moo tax këru bàyyi maxtaar congaan jege woon tefes mooy kër bu njëkk bi mu yëkkati nuyoo ak li mu lamb lépp muy jàmm ak yërmande ak barke teg ko ci loxol sang bii doon wax di Cerno Omar Sayid Diallo li mu wax lépp sama digganteeg moom dëgg la te xaritoog yàlla kese du leneen muy ku baax nga bëgguma wax mu wax ma wax mu nuru leneen suñu ko nuyoo képp kuy imaam ci jumaay wala ngay noddukat wala nga di jullee wala ngay ustaas yaa ngi ci biir mu yóbbaale leen kéew waaye ñun l'islam day diine joo xam ne li mu xam mooy dañuy boole diine ak adduna muy dox parallèlement benn du ci yàqal morom ñi ngi nuyu chef de quartier Serigne Demba Fall di suñu doomu baay yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa boole woon diine ak adduna moo tax Baay Alxaaji Mansuur radiyallahu anhu nee na man ci école Cheikhul Hadji Malick laa génn mu formé ma ci sama diine ma téye ko ci sama ndeyjoor mu formé ma ci sama ma téye ko ci sama càmmooñ di leen doxal ñoom ñaar te benn ko waxal mu ne zawadani wa dunyan kifayatan fa ahmadu rabbi allah id huwa wasilu kon ñu ngi lay nuyu Serigne Demba Fall di nuyu Serigne Yoro di nuyu al ustaaz al aalim al allaama wal fahaama darraaja wal jiidi lil mushaayix muy kii ba pare ngay joor muy imaam Aliyu Wat taxawaayam ci daayira bi ñun xam nañ ko ndax Tiwaawan ñoo fay bokk Tiwaawoon googu nag la maam Alaaji Mansour ne woon Tiwaawonukum haadihi mahallu istiqaamatin alaa fastaqiimu misla man qablakum maru nee na Tiwaawoon place la bu jube di fa jaamoo yàlla di fa bëggante du place bu ñuy parparloo ak a wut péete ndax nee na ñi waroon Maodo nekkewuñ fa woon di nuyu Serigne Soogi Ndior di nuyu Serigne Abdourahman en tant responsable politique Serigne Abdourahman ñu ngi lay nuyu Kamara Serigne Abdourahman Kamara anam mu ngi toog wàcc na ñi koy nuyu ñu jot leen ko di nuyu nag suñu mag. suñu jigéen suñu doomu baay suñu xarit suñu soppi nga xam ne damay wax ne gute laa gute laa biir wuréem di soxna Adja Ayda Conga mu ngi ànd ak rakkam soxna xujja ànd ak soxnaam Adja Ayda Ka xaw ma nag bu ma ci tegee baat boobu bi may bëgg a wax danañ ko yóbbaale jël muy kaani xeeñu Ousmane Conga jot li leen ma ko ah Ousmane danga may dégg sëñ Ousmane demagul sëñ Ousmane maa ngi day nuyu xaw woon yaakaar na DG anamu eh ay jërëjëf noo doon yaa ngi yéex sëñ Ousmane nuyu naa la lu bëri di sama doomu baay di sama wëllëre di sama waxandoo di sama lépp di am di ko am njariñ ci askan wi. rawatina famille bi mu bokk te bu ma nee bi du ñu du ñu sant Tongaan mais ñëpp ñi nga xam ne bari alxaaji Maxtaar Tongaan dafa am lante woon ak ñoom. nuyu Adja Fat Njaay su ma nuyee ñaari Adja yooyu ñu yóbbaale géew jigéen ñi ci des mu tënkal ma sama di nuyu itam Mouhamad Darassi. mu nit responsable politique la Dramé Dramé politiciens yi dama leen di dénk 4 P les 4 P politicien bu ne war na ko Oui, patience. persévérance mooy nga yàgg fa muur partage bon doxee bañ dox la dara nga séddoo koog militants yi ak askan la plupart politiciens yi nag léeg-léeg dañuy jaawale diggante militant ak citoyen politicien du def citoyen bu mu gis defe ne militant li di électoral bi nga xam ne silencieuse la nga xam ne ñoom duñu wax bu wote jotee rek la ñuy dem bi di teew di teewal ñun suñ société ñu ngi lay nuyu di nuyu nag ñii nga xam ne ñooy al xawaasin xawaasin waxee mooy jamu Hassan ibnu Thaabit yonent bi alayhi salaatu wasalaam imam amoon na ku ñuy wax Hassan daanan defal xasaan lu mel ni mbaar ci buntu jàkke booba tant amul muy wéy yonent bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ko ñaanal naan allah